وتب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراد وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أذكره ذكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني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 ñëw nañ fi ngir ak ñëw nañ fi ngir ak bokk. li nga xam ne moom la sëñ li nga xam ne moom la sëñ Modou Fadiama bokk. bokk ak moom mii. bokk ak moom mii di Serigne Cheikh Anta. moom xam na ko moom xam na ko. ñun ñu ko bokk xam nañ ko. ñun ñu ko bokk xam nañ ko. waaye sëñ Touba nag. waaye sëñ nag. lépp dafa. ku ci ku ci bëgg am dara waaye ci bëgg am da ngay jaay la nga ci am jëndee da ngay jaay la nga ci am jëndee ko taali bi moo tax ñun loolee ñu def ko moo tax ñun loolee ñu def ko moo tax bi ma dikkee moo tax bi ma dikkee ma ñëw ci turu Pape Diop ma ci turu président Pape Diop bokk gis-gis a mboolem délégation bi sëñ Gallo Lim bi sëñ Gallo Lim sukk ci kanamu mu Cheikh sukk ci kanamu Serigne Cheikh Anta wax na sa xarit wax ni sa xarit sab taalibe sab taalibe ku la bëgg ku la bëgg te amul fu mu tàmbalee ci amul fu mu yem te amul fu mu tàmbalee ci yow amul fu mu yem ci yow ba léegi bi may ñëw rek. ba léegi bi may ñëw rek. laajal na ndax ak ngeen ci sëriñ laaj na ndax ak ngeen ci sëriñ Cheikh. ma ne ko ñu ngi ci buntu bi di. ma mu ne alhamdulilahi rabbil alamin. man day daaru man day daaru salaam. ñëpp laa bëgg. ñëpp la bëgg. ñëpp laa yaakaar. ñëpp laa yaakaar. waaye Serigne Cheikh day sama xaritu. waaye boo xam ne moom xam na ko. boo xam ne moom xam ko. man xam naa ko man xam naa ko. xam na fi mu ko féete démb. xam naa fi mu ko nee na nee na xam na fi mu ko féete démb. fi mu ko féete tey. ak moo tax bi ñu tegee ci département bi. moo tax bi ñu tegee ci département bi. ñoo góor yi ñu àndal. mu ne li màggal gi xat-xat li màggal gi di xat leen fa kenn jiitu bu leen ngeen sukk ca kanamu sëriñ ngeen sukk ca kanamu sëriñ ba jot ko sama cant ni na ma ñaanal ndax président nee na moom taalibeem sëriñ Tuubaa la te dafa bëgg a liggéey ci Sénégal lii ko yàlla dénk ci xam-xam ak wërsëg bëggul mu nekk ba jóge fi te joxu ko Sénégal moo tax bi ñuy dem ci élection législative yi ne mu investir ñu ñu wax ni damaa bëgg def ci département bi loo xam ni kenn mosu ko fee def ndax fi la sama yaakaar ne tey ak ëllëg bu loolu jàllee bu loolu jàllee nee na nga ñaan ci réew mi jàmm ndax xam na yow yaay kan ndax xam na yow yaay kan ndax Sénégal jàmm la ñu jàmm la ñu teewoo ak dal ak dal ak yar ak yar ak teggin ak jël réew mi yóbbu ko ci démocratie ak jël réew mi yóbbu ko ci démocratie nga ñaanal ko lépp tàbbi ci loxo def ko ni mu ko bëggee ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf ñun nag suñ digg ak yow wa kafe billahi shahida yàlla doy na seere moom mi doy na seere nee na délégation bi mu yebal mi ngi leen di santaat bu baax di leen beral ak cant di xamal président Pape Diop fii moom naka jekk këram la këram la ba léegi itam waxtu wu nekk mi ngi ci xel yi ngi koy ñaanal te duñ ko fàtte benn yoon dañoo gën a am mbég nag ndax alaaji maam mbay mii ñoo bokk lépp maag moom mu doon sama xarit lool kon nag bu ko jegee jiital ko ci liste sama xel gën naa dal ci président Pape Diop jërë ngeen jëf arum ayatu munzilil kitabi nuzuli wa innani anil azabi maazili إذا تلوت آية نلت منا من مالك ملك قد أمنا ñëw nañ fii ci bi tey ñëwal fi président Pape Diop ah, mu yabal ñu ci xaritam sëriñam sëriñ Cheikh Anta Mbacké Darou Salaam boole maag délégation bu mag bu rëy bi ñu ñëw waxtaan sëriñ bi sottante moom ay kàddu jottalante moom ay cant ci turu président Pape Diop waaye dafa mel sëriñ bi xolam sedd na guy ndax wax na digganteem kóllëreem ak Pape Diop démb tey soog a ñëw tey nee na kër gi kërama ñun ñibbi di kit ay waa këram lañ kon ñun suñu xol sedd na bu baax a baax a baax yaakaar nañ ne département bi ñu Pape Diop jiital am nañ ci yaakaar ndax sëñ bi ñaanal nañu te mi ci suñ ginnaaw te it wax na ne président neexoon na am yaakaar réew mi fu mu ci bëgg a rek dana fa àgg incha allah bu soobee sëñ Tuubaa. ñëwoon fii nag si siyaare maam Cheikh Anta Gaawaan ku ne xam na ne président Pape Diop sëñ Tuubaa rek a ko ko ñor damay mottali rek waaye imaam wax na lépp لكل من ضيقني من قبل ولم يتب نيا وأرى قبل